bismillahi rahmaani rahim wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di ñaw ak yéen ci xaajub ñaar fukk ak ñeent ci bi nga xam ne dañu ci jéem a leeral ci wolof sunu kem kattan téereb minanul baaqil qadim fi siirati cheikhil xadim sëriñ bachiru radiallahu taala anhu ko ci dunduk sëriñ bi xaaj bi nu génn mi ngi andi woon ay leeral ci jihaad yi jiitu woon nga xam ne dana am dana am loo ci mën a jànge xay na ci diggante sëriñ bi ak tubaab bi mooy jihaati Souleymane Baal ak Cheikh Omar al Fouti ak ku mel na Nasiru Diin ak Maba Jaxoog yooyu waaye tubaab bi mujj ñëw rek daal di yilif li ëpp maanaam yilif lu baree bari ci Afrique ba gàllankoor seen ndono yi lañ waroon a lañ waroon a jiite yu baree bari tubaab bi gàllankoor ko rawatina Seex Umar Seex Umarul Fuuti yi ni mu beesoo woon ca bee jàll sëñ Basiiru ne wallahu waarithul ardi wa man alayha yàlla mooy suuf si ak li na ci kaw suuf lépp kon fi ñu tàmbale tey sëñ Basiiru ne fa haada an wa in kaana ajnabiyan ala al amr faqad jarra ilayhi talabu taalili l umuuri bil ilali zaahira nee na gis-gis bi doonte taxut sax mu mu mu joteek mbir mi dara xëy na mën nañoo jote mën nañoo bañ a jote dara sax waaye li ko indi li indi rek mooy sàkku jéem a maanaam jéem a jox yilla mbir yi yillaal mbir yi rek moo ko indi mu am yilla yillay zaahir rek yillay zaahir yi rek nga xam ne buñ la indilee liy weesu xëy na am loo ci mën a jële <clears throat> mu ne ci kem nam jàppandee rek mu ne loolu sax mën naa bañ a am dëgg-dëgg li ñu wax léegi ak la weesu xëy na am lu mën a indi ci diggante sañ bëgg tubaab yi nee na mën naa bañ a indi sax loolu mën naa bañ a doon dëgg-dëgg mbir mi ndax dëgg-dëgg mbir mi moom mu ne xamuñu ko nee waaye léegi lu mu néew néew rek ma bàyyee la loo loo xam ne sama xel dana ci mën a jële njariñ loo xam ne xëy na daal du ñàkk njariñ nga mën cee xalaat lu mën a yaatal sam xel rek indil la ci loo xam danga ci mën a xalaate ndax nin nin nin war a xalaate rek nga war a xalaate nun gënuñ laa yey ci mën a nga mën a seet mbir yi la ko waral dëgg-dëggan la ak xalaat yeeg seetantal bi daal gënuñ la ci yey maanaam nee na waaye loolu lépp nag nañ ko nañ ko tegandi te dellu ci lanu nekkoon muy yaatal indi ak laltaay ca la nga xam ne tax na way añaan yeeg rambaaj yi taxawatuñ toogatuñ ci mbirum Sëñ Tuubaa mu ne nañu wax ne bokk na ci li ñu li ñu miin ci nit ñi li nga xam ne ñu bari xam nañ ko ci nit ñi mooy soppiku gu bette saa bu amee nit ñi duñ sukkandikoo seen xel seen xel mu wér maanaam mbir saa bu mbir ne tëll xew rek di lu bees te bette mbir yi duñu demee seen xel ñu ci bari dañuy topp mbir ma rek ànd ak dossier di wéy maanaam fa mbooloo ma jëm rek ñu jëm fa te duñu xalaat lii lu ko indi dëgg-dëgg lu mat di bàyyi xel la mbir bu xewee ngay xalaat lii lu mu doon ak loo ca mën a jàngate lu mu doon ba a topp rek xew-xew ba ak coow ya nee na sunu sëriñ radiyallahu anhu ci njaal bee njaalbeenug sosoom ba mu feeñee rek dafa wuute ak nit ñi ci lépp jëm ci wéeral diineem wéeral diineem taxawal ay jaamu yàllaamam ay jaamu yàlla am ab gëstu ci dëgg-dëgg yi mbir mën a muy seet la ci wóor dëgg-dëgg ak ak ak maanaam dëgg-dëgg yi xaqaaq yeeg axwaal yépp yëpp yi mu ciy gëstu ci jeexeeti nit ñu baax ñeek aarifuuna billahi ñi xam yàlla mu ne ca ñoom ñuy xam yàlla nag di nit ñu baax ñooñu gaay yàlla yi ñoom ci luñ yéwénal seen àdduna ca la ñuy nekk yéwé nag sàkkoo ci ngërëmul yàlla nga xam ne la leen war ci àdduna muy jaamu yàlla ak lépp ca la ñuy nekk ak jàpp ci seen aada te du gën jaamu yàlla tabaraka wa taala nee na moom sëriñ bi dafa àndoon ak waay juram rek àndu kaw ci kaw wërtee fi topp way jur ci barabi ceddo ya barabi ceddo ya nga xam ne Maam Mor Anta dafa daa nekk ngir àtte ngir àtte na mu la ko waxe woon atte ba nga xam ne daana ko taxawee moom Maam Mor Anta Sali mu la ko waxe woon ci gannaaw nee na sëñ Tuubaa daa ànd ak moom di nekk ak moom ci barabi buur yooyu rek ci kaw ci saaxir rek nekku kaw ngir warte fi toppi wayjur ni ko sunu borom santaane muy maslaa ngir loolu waaye gannaaw bi juram génne àdduna nag dafa tem moom ci jaamu yàlla dafa jóg rek taxaw tem ci jaamu yàlla booleetu ca booleetu ca la neen maslaa wut maslaa tul ci la jaamu yàlla rek ak xam-xam ak tàggatu ci jik ci ci melow ci kem jikkoy gaaña teg lépp ci yoonu sunna ak saxe ci julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam yooyu rek ci la Sëriñ Tuubaa nekk gannaaw waaye juróom moom dafa tegoo rek ci yoon woowu jaamu yàlla rek xam-xam tàggatu ci jikko yi jikkoy gaañu baax ñi teg lépp ci sunna nag ak sax julli ci yonente bi di ko liggéeyal booleetu ca leneen mujj nit ñi di ñëw ci moom di sàkku xam-xam ñenn ñi dañoo taqoog moom di ko roy ne li mu nekk mu nekk seen sëriñ ñu futtiku ci àdduna jublu àllaaxira mooy la sëñ Tuubaa nekk rek mu ñu ne ca ñenn ñi moom dañoo des ci jàng rek njàngum kese ndax loolu lañu xam nee na sëñ Tuubaa di tërbiye ñoo ñu nekk tërbiye murid ya nga xam ne ñoo leen jiitu di leen defar nee na ñoo am ci diggante ñaari jikko yu mag yi di as sidq wal dëggu ak sellal ñu am ca loo xam ne kenn sikk sàkkawul ci am ga ñu ko am ca anam ga gën a mat ñu am ko waaye ñu ko amee ci yoonu tàggatu ci tudd yàlla rek ak dëddu àdduna ak liggéeyal nit yàlla yi gaa ñu baax ñu liggéeyal leen liggéeyal jullit ñi xidma xidma kuy ànd ak cofeel liggéeyub cofeel ak mm, la la la la ki ngay liggéeyal gënal la sa bopp nga xam ne moo lay gënal sa bopp la koy bëggal sax doo ko bëggal sa bopp yow la nga bëgg la ko bëggal mooy ëpp la nga bëggal sa bopp mooy yu'thiruuna alaa anfusihim loolu melaw yooyu melaw saxaaba ya la woon noonu la taalibi Sëñ Tuubaa yi de àndoñu ànd ak moom yoon woowu la leen tegoon nee na nee na leeruk topp sunna nag ci sàmm daal di feeñ ci ñoom taalibe yooyu xikam ay xikam di jaar ci seeni làmmiñ waaye ca seeni xol lay jóge lu sax ca seeni xol la nee na lépp nag jóge ci tabak sunu borom nee na gaa ñi nga xam ne xam nañu tuuti ci xam-xami gaaña xam-xami niti yàlla yi ak seeni melo tàmbali nag di sànni gis taalibe Sëñ Tuubaa yooyu ndax melo yi ñu gis ci ñoom mooy melaw niti yàlla ya ña am xam-xam tuuti ca doxiinu gaañu baax ña niti yàlla ya biñ gisee doxiinu ñii sëñ Tuubaa di tërbiya dañu leen di tàll di leen tàmbal di leen seetlu nag leen seetlu ngir melaw ya ñu xam xamoon ka ca xamoon ko ca gaaña te gis nañu ko ci ñoom mun waaye ñenn ci boroom xam-xam yi ñoom dañoo woyefal lii taalibe sañ Tuubaa yi nekk dañoo jàpp lii ñu nekk du dara daal di ñun daal xamuñu yoon wu jëm aljanna wudul jàng ak jàngale ni ko diine santaane santaane mooy lii muy amee rek ci ñi nga xam ne dañuy weddi tasawuf ak yu mel noonu sëñ Basiir ne loolu it ñoom mooy seen tolluwaay ci xam-xam foofu la seen xam-xam toll moo tax ñu waxee noonu nee na sëñ Tuubaa nekk ci loolu taalibe yi ba ci dogalub yàlla nag am koo xam ne dafa ñëw jébbalu ci loxoom muy doomi bàyyi Lat Joor di Ibrahima Koddu Jóob biram kodd mi nga xam dooy bàyyi buur bii la di Lat Joor di buurub Kajoor ñëw jébbalu ci Sëñ Tuubaa te nee na biram kodd ko amoon wàccuwaay bu xejj la fa Lat Joor ku xejjoon la mbokkam la waaye dafa xejjoon nee na ba mu jébbaloo la ko Sëñ Tuubaa jëkk a digal mooy te Sëñ Tuubaa niñ koy gisee ñoom mooy nguuru seen àttekat bu bii jiitu woon la di ma Mor Anta Sali as nguuram la woon ne ci wetam di ko ne ndaw ci saayir nee waaye biram koddo bu mu ñëwee jébbalu ci Sëñ Tuubaa lam ko jëkk digal mooy lépp loo jële woon ca alali ña toppoon ahmadu Cheikhu delloo ko nee na ahmadu Cheikhu waay la woon ju jóge fuuta benn waay la woon bu jóge fuuta ne day jihaat ak buuri kajoor ngir dugal leen ci lislaam te boo fekkee ne buuri kajoor di julli di woor di di tudd baati seede yi laa ilaha illallah kon ñu gëmoon yàlla lañu di ko jaamu waaye mu ne du ñuy jullit da leen di leen di xeex ñoom ngir tuubal leen jihaad ak ñoom ngir dugal leen ci lislaam mu ne yàlla rek a xam dëgg dëgg mbiram moom Ahmadu Cheikh mu ne waaye lu mën a xew gàññee na buuri Kajoor dàq na leen ay yoon ba tubaab bi dimbale leen ñu rey ko giir alalam nangu ko nangu alal yi ñu ànd ak moom itam nee maamaroonte sali nag moom booba da daa tere ñu jël seeni alal da ko daa tere moom dafa àtte woon ne alal ja waree su ko jëfandikoo booba mi ngi fi ndax ñoom ñooñu ay jullit lañu xeex bi ñuy xeex fitna rek la ñoom ñëpp ay jullit lañu xeex bi fitna la du jeexeet deret ji ju ci tuuru itam deret ju neen la kenn du ca fay kenn du ca joxe diya kon alal ji dañ ko war a delloo seeni alal sëriñ Bachiru ne dégg naa ñu ne lenn ci àttekat yi moom ñu bokkut ak Maam Mor Anta Sali lenn lenn ca ñoom dagalanoon dagal dagal daganal nañu ñoom dañoo daganaloon alal jooju ne mënees na koo jëfandikoo ñu bari ci nit ñi nekk daal di wéy ci ci ubbi googu ñu ubbee ne mënees naa jëfandikoo alal ja waaye ba Ibrahima Koddu mii Ibrahima Jóob mii ba mu jébbaloo ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa da koo digal moom ne ko loo jële woon ca xare booba te mooy xareb Sàmba Saajo xareb Sàmba Ahmadou Cheikh moom moo ko jiite woon jógewoon woon di jihaad ne day jihaad ni ko wax léegi ba leen tubaab bi dimbalee ñu gàññe ko ray ko nangu alalam nangu alal yi ña ko topp maamorante sa li ne leen booba mi ngi fi ne leen alal ji waree su ko jëfandikoo ndax ñoom ñëpp ay jullit lañu lii du du du xeex du jihaad maanaam fitna rek la na rek la waaye am na ci àttekat yi ñu daganal alal ja nit ñi dañuy bëgg alal ba ñu bari wéy ca loola di jëfandikoo alal ja ngir mm, lan na ci àttekat yi ubbee loolu gannaaw bi Maam Mor bi fi Maam Mor Anta nag ñuy dem ba kenn ca ña ànd ak buur ba di ko xajji fa moom di doomi baayam ñëw jébbul ci Sëñ Tuubaa ñu ko wax Ibrahima Koddu Jóob ñu gën koo xam ci Biram Koddu di doomi bàyyi Lat Joor jege woon ko lool bi mu ñëwee jébbalu ci sëñ tubaa sëñ tubaa lam ko jëkk digal mooy loo jële woon ca alali ahmadu seexu jaag ña ko topp lu ngeen ci jële woon loo ca amoon yow delloo ko ibrahima kot daldi jëfandikoo jëfe ndigal sëñ tubaa loolu delloo lu mu ca jële woon loolu nag jula jul nag jur na coow lu bari loo xam ne danañ ci ñëw yi ciy topp ci bi ciy topp incha allah waaye li ñu war a jëkk jàng ci loolu mooy sëñ tubaa képp ku koy topp lu sell rek nga war di jëfandikoo gis nga kii ba mu jébbaloo lam mu ko jëkk a digal rek mooy mooy loolu loolu la sëñ Basiir wax fa awwalu maa amarahu bihi cheikhuna lam ko jëkk a digal mooy lum jële woon ci alal jooju nag na génn loxoom kon lu sàll rek la ñuy àndeek sëñ Tuubaa loolu taalibi yépp war nañ cee bàyyi xel kon jox leen daje ci bi ci topp incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa